comme infrastructure yi nga xam ne dañ ko soxla parce que effectivement merci d'abord pour la question parce que am na benn manque d'infrastructure boo xam ne am na fi déjà euh, ñun euh, amuñu ring olympique donc loolu amuñu ko donc on a déjà écrit le ministère on même écrit CNOSS euh, pour que ñu xool naka la ñuy jàppale par rapport à ça donc il y être boxe anglaise yi nga xam ne am nañ ko stade yi nga xam ne tamit adéquat na pour ñu mun ko fa def même si il y a bi nga xam ne si biir am na benn salle de boxe bi nga xam ne mhm. Mhm. foofu la ñuy dem mais à part arène nationale presque fii si biir Dakar amul benn infrastructure boo xam ne ñun mën nañ fa dem di fa di fa pratiquer bu am ring boo xam ne dafa nekk dans les normes mmh. donc je pense que l'État du Sénégal moom la ñu adressé directement à travers son des sports war na mën xool yan infrastructure la mën a def au niveau de Diamniadio par exemple dina am dafay sori trop mais fi nga xam ne mooy capital bi fi nit ñi dëkk à part arène national bi nga xam ne am na am na ring amul feneen foo xam ne infrastructure yu mel noonu daanaka yu ñu mën a pratiquer wala ñu mën a defee ay compétition normalement dina ci am euh, yeneen yi nga xam ne moom la ñuy defee yëpp dafay nekk ay euh, complexe privé yoo xam ne pour ñu mën fa pratiquer day day day dañuy fay et c'est un peu coûteux parfois mm-hmm. aussi